Ah. yàllaan bikum benn milliard ci suñu xaalis moom la njiiti réew mi Macky sàll jël dimbalee ko sàmmkat ya seen jur gàkk xar yaag nag ya faatu ci xanam gu jéggi dayo ginnaaw taw bu métti bii xam talaata bii ñu weesu direct info moo ñu ko xamal ba pare moom njiit réew Macky Sall woona jaaykat yi jaay li jur gi di dundee ñu bañ fee nekk dina bëlaka seera ko yokku vox populi ne njiit réew mi Macky Sall benn milliard boobu mu joxe xaaral ma wax leen nuñ ko séddalee département Kaffrine Podor Ranérou Linguère ñoo ci gën a métti le ci dee ak jur gi képp ku dee la nag fas wala nag wala mbaam fukki junne lañ lay dimbale ku dee la xar mbaa bëy juróomi junne lañ lay dimbale la fa dee nag ci ay xar ñaar fukki junne ñaar yu toftal juróom-ñeenti téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñaar yeneen jur yi tamit la ca dee bëri na turbine yeneen kaay na li am kay catastrophe la ay nag xar bëy mbaam bokk ñoom ñëpp faatu ci lim bu bëri te li des suñ diggante ak tabaski bëreetul lu manqué ñaari weer la le soleil yeneen kaay ne waaye sàmmkat yi borom jur gi njiit réew dimbale na leen ci benn Macky kay ndàmp na leen mastaw na leen si du ko tijjee na ko benn milliard kay loolu baax la li baaxut nag te réewum Sénégal di ko def mooy yàq pasar pasare ay milliards ci ay commande ci wàllu ngàndaay parlement bu France seen rapport ba moo ko xamle ba tax Dakar Times xëy di laajte ne Sénégal réew mu ndóol askan wi si coono ñu jël ay milliards daal di ko dugal ci ay ngàndaay ana luy njëriñam te problème yu bëri ci réew mi le quotidien na ko li nga waxee dëgg ndax mutuelle d'épargne et de crédit ñoom it ci ay jafe-jafe yu bëri Idrissa Seck ne man li may ñaawlu mooy li ñu xaatim déggoo ci wàllu napp diggante Sénégal ak Mauritanie anam gañ ko amalee ak séddoo ga yemul maanaam Mauritanie moo ñu nax mi ngi seet ndajeb secret lañ amal ca seen biir ca daluwaayu bokk gis-gis ni ki démb kenn fekkewu ko fañ doon na bëtu waa PDS fara dool Xalifa Sàll yi Ousmane Sonko ña nga fa wan Mamadou Diop Decroix ne fi mu toll nii jàppante ñàkkante fayekuwante ak nguur gi mënuñu koo ñàkk def ndax Macky moo ñu puus bañ sës ci miir bi kon faaw ñu fippu Walf Fadjri yéene kaay na wote 2019 di ñëw boo moytu lu mësta am dina am Sénégal aayaw seetal parti yu njëkk yi ñu bokk wala sax bu ñu bokk ndaara la ñuy jël parti bu mel ni PS PIT LD ñooy parti yu njëkk ya sénégalais yi war nañ leen ginnaaw parti yu bees yi nag APR PASTEF grand parti réew mi yooyu la gaa yi jox bët nay leer laneen lu leer ba yegg ci naan ñi ja mooy ne aagi bu sumaare samp na ndëndëm laaj réew mi ma ngay ut nag ñu ñu am doole ngoone ndooy bi fi nekkoon ministre ma nga ca wetam réew mi yéene kaay nañu PDS ak taxaw Sénégal ñoo bokk benn jàngoro te boo ñu uti a uti garab dëgg nag mooy Karim a ñàkk kattanam moo bëriwut. ah yow seet. waaw yow koo xam ne nekkoo Sénégal yaa nga bitim réew nga digoon waa PDS na dëgg a ñëw tëbale kenn gisul la ñëw moo tax enquête yi na Karim Wade mii boo mooy tuut jël bu rëy nga koy xaar bés bu rëy buy xaar imam Aliou Ndaw mooy fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi ñu ne ci la ëtt attekaay bi di joxe dogal fañ koy tëj wala fañ koy bàyyi mu ñibbi la cloche yi ñu ko xamal li xamal moom l'évidence yi mooy na a yow seetal usine ba tabax nañ ko ba mu ko moo ci des démb bàyyi siis ab délégation bu bàyyeekoo Nations Unies mbootaayu xeet des Nations Unies pour la population ki len ci Afrique de l'Ouest ñëw na yëkkate ay kaddu Sénégal yëpp diko dégg mu rafetlu taxawayu bay 6 ñetti junney jigéen ya nar liggéey usine ba ak xeyu ndaw yi projet yam taxawal kaolax yi parana na ñaga ca yoon commencé nañ ko askanu kaolax mbolo mu bari, gennu kilifa yoyu sargal bay 6 delo ko njukkal ci ay kàddoom bay 6 ne man liggéey rek ak lu suxali kaolax wax ji jarul muy bari wax ji bari nak moy Ami Collé Ba biñu anam gur ñaaw ray ko sul ko Mboro libération soxna ci ray xam nga lu mu joteeg moom limon limon moo tax mu ray ko ay tàggat yaram quart de finale coupe du monde tey ci àjjuma ji France Uruguay suñ noppee Brésil ak Belgique stade yéene kaay ne sokku yi ñoo dajee nar a neex li neex bombardier mooy mu mbukk ëmma seen dundam gi yëpp li ci des mu nekk roi des arènes maanaam kenn bañ a nangu raaya bi ci moom ci ñeen fukki at ñaar nag su ko defee lu rëy lay nekk laneen lu rëy waaye bii fa yegg ci bon garaaw naaru Mauritanie bi daal fa sib sone benn waay njort na daal fa am lu mu siq jabaram rek mu téye waa rocc jaaseem di ko fereje di ko ko cor ba waa ji faatu ñàkk bakkanam allah anam gu ñaaw te jégg dayo yëf yaa nga amee ci diiwaanu Saly laneen lu am ca diiwaanu Kébémer dëkk bu wax ndann boobu l'observateur moo ko xamal ay imam daal ñoo jóg di nodd fajar ay quatre heures du matin naka lañ commencé noddu ko rek dégg bali fa nekk waaye imam yeew leen dëkk bi yeew leen commencé nodd jeexalee ko yuuxum sàcc ca ndànn la amee waa ma ne xaw ma kande waaye waa banque ba war nañoo tabax yokkaat seen jumaa ja ndax mënuñ leen a fay yow na ku dégg fiq nga